l'on poursuit euh, le réveil euh, ñu ngi euh, ci la partie chronique du jour doyen Mademba Ramata Dia bonjour. bonjour Sokhna Aïcha. très ravi de vous retrouver après une semaine. le plaisir est partagé. di mm-hmm. nuyu aussi Salma. di mm-hmm. nuyu Oxa. an dend ak séeréer suba teel moom. <laughs> c'est une bénédiction comme que séeréer bu baax la. loolu c'est une bénédiction. <laughs> il va vous bénir. <laughs> il est terrible en tout cas sàcc moom la ñuy daw démb kurpañ na leen kurpañ di ko ziar ah, moom moom moom doyen ah, mën nañ ci dugg Aïcha. mais bien sûr mm, Salma mi ngi noonu ñu dañuy def continuité rek. parce que mm. Orhan ak euh, invité ñu ngi woon ci point bu important. Mm. le président Sall war a recevoir aujourd'hui ñi nga ne ñoom la ñu woowee collectif des leur euh, euh, aujourd'hui gis nañ di ci euh, monsieur Dieng wax mhm. mois mm -hmm. j'ai fait exprès de lui demander ndax yow da ngay dem mhm. parce que après dafa nekk loo xamante ni même bu fekkente ni comme ni mu ko waxee collectif bi mooy dem mhm. mais sa image yow da ciy demaale tout à te c'est bien à préciser et bien à savoir que tey jii le peuple sénégalais déjà à l'œil ñoom ñi nga xamante ne ñoo di collectif bi tout à naa bokk bi ki ko fi waxoon bon nekkuñu di chronique sax mais naa bokk gi dem ba ma dem ba xam Demba xamata ki ko fi waxoon fexe na ba bokk lijjante bokkam. mais bokkam googu lan la ko àndil. tey jii collectif bi aussi bu demee au nom du collectif gisanteeg le président Sall lan la leen mën a àndil. politiquement ci seen poids électoral. Mhm. bien que bu ñu bokkul seen poids mën na peser parce que ils ont leur mot à ci élection yi ñu dëgg man ban conséquence la mën a am. waaw xam nga politique c'est la gestion des opportunités. tout à fait sunum réew politique c'est la gestion des intérêts sunum réew politique c'est la gestion des situations. Mm. moo tax très souvent dangay gis yoo xam ne yow mii sori dalay lay jaaxal. Mm-hmm. parce que gis ñu ànd te waruñoo ànd. Mm-hmm. ñu mekk benn doon bañ lenn dem nangu ko tey ci biir loolu nag collectif bi. ñoom yónnee woon nañ lettre présent Macky bëgg mu intervenir pour ñu càmbaraat di ñuy wax parenage bi. parce que ñoom dañoo jàppoon ne bari woon na ay fay bari woon na ay rëq-rëq bari woon na ay dysfonctionnement loolu ñëpp d'accord nañ ci am na lu bari wax dëgg yàlla doxul ci élection ci wàllu kii nu mu tuddee ci wàllu. parrainage bi lu bari doxul ci ci fichier introuvable électeur yi ñu xam ne. xamuñ fu nekk. boole ko aussi clé inexportable donc yooyu bëri woon na ay rëq-rëq yoo xam ne pour la fois dans l'histoire de ce pays nga gis mm. conseil constitutionnel ni ñu ko ŋàññee mm-hmm. wax dëgg yàlla mu suñu ko ŋàññee boo interroger histoire politique présidentielle yi fi jaar yëpp donc ça veut dire que ren bëri woon na ay problème bëri woon na ay jafe mm-hmm. ci biir loolu nag bi bindoon nañu avant ñuy génnee résultat définitif yi mm-hmm. ne président Macky Sall dañoo bëgg comme que moom mooy la clé de voûte ak terme yi utiliser sax terme yu njekk la hmm. la clé de voûte des institutions waaw yooyu yëpp pour woon ko ne wax dëgg yàlla bugg nañu mu intervenir hmm. mais moom waxu leen dara hmm. ba léegi nag ba affaire yi jàll ba pare li tubaab di wax le vin est il faut le boire le bi mën na doon sàngara wala bisaab bu ñu neexee. mën na doon aussi chiffre ba mhm. <laughs> donc ça veut déjà le vingt est tiré il y a vingt candidats le vingt est mhm. génn nañ ko foo ko wëlbati tamit le vingt est mhm. léegi nag ndax bay woyul mbuus. dafa mel ni action passé na. parce que fi mu toll nii le le conseil constitutionnel résultat yi mu joxe c'est c'est sans recours. kenn mënatu ci dara. donc même président de la république mënatu dara. Mhm. peut-être dina leen soxla waxtaan bëri bëri rek. dina leen dellu leen signature de waaw dina leen woo waxtaan ak ñoom moom c'est nag acteur politique. Mhm. te yow leer na ne président Macky Sall acte bu mu posé c'est un acte politique. Mhm. mu muy li ko intéressé mooy diviser leen. diviser te te te te. te il a réussi ça. déjà ñaari Mimi ja Bernard Langam. Cheikh Dieng mi fi jóge nii moom tamit dem am na ñeneen ñuy kii donc te ñoo ñuy dem aussi am nañu yeneen intérêt. Mhm. qu'est-ce qui se derrière cette crise dire ak lu mu mënti demee le grand gagnant c'est le président Macky Sall. Mhm. ñoom ils seront le grand perdant. oui parce que mënuñu ci am gain. Mhm. te day yàq seen. image seen crédibilité donc ça veut dire que ils vont vers leur perte léegi nag om politique yi aussi doo comprendre des fois doo xam lu leen lu leen lu leen animé mhm. mais ce qui est sûr cette rencontre n'a aucun sens mhm. n'a aucune pertinence ni opportune amul benn amul solo donc ça veut que mhm. c'est Macky Sall qui gagne mhm. il a réussi à comme ni mu ko doon mhm. defee rek réduire l'opposition à sa plus diviser l'opposition à sa plus simple parce que ñaari verbe lay lay lay utiliser boo boo boo xoolee les actes politiques de Macky Sall diviser régner diviser ak divertir eh, mais pourquoi tey opposition bi mënul mënul mënul mënul jàng ci li fi li fi xewoon yëpp parce que on a l'impression que moom le président xam na ni genre xeetu cuuraay la wala parfum boo xamante ni moom mi ngi làmboog moom te ku mu jege aussi askan bi dina la wàccu ba faaw parce que comme comme je viens de le dire le peuple sénégalais a à ñi nga xamante ne tey ji ñoo di ñoo di politicien bi parce que nag politique ba woon du jamono ji mm. pourquoi politiciens yi mënuñu jàng de leurs erreurs wala ci doxalinu Macky ni mu doon doxee non xam dinañ jàng sa de leurs erreurs mais très souvent day mel ni ñoom dañu ils se croient intelligent mm. xam nga intelligence bu bari ak ruse xam nga la politique au Sénégal c'est la ruse dañuy naxante. Mm. naxante nag da ngay dem ba tu tombes dans ton propre piège. Mm-hmm. la lettre n'a aucune pertinence l'acte qu'ils vont poser aussi n'a aucune pertinence donc sa veut dire ils sont tombés dans leur propre piège. Mm-hmm. léegi nag ils vont négocier seet boo xam xaw ma lan lañ fay génnee mais daal li ñu fay génne moom du am solo. Mm-hmm. te askan wi aussi loolu intérêt xam nga askan wi lan moo leen di intéressé. mooy le 25 février bu ñu fi yàlla bàyyee ñun ñëpp ku nekk dox sa dox. li nga war a def nga def ko mm. seet ki ci ñaar fukki yi ñu ci ñu tànn mm-hmm. ku la ci saf nga votel ko donc foofu lañ toll donc mais toute autre démarche quel que soit yow li ngay teg ak yooyu ak présent Macky Sall mm-hmm. ça n'intéresse pas le peuple mm-hmm. le peuple ce qui l'intéresse c'est le rendez-vous du ah vingt cinq février sa li ñuy naan bëgg bëre bañ bëre wari ba dem na këng fi mu nekk nii moom waxu mag dem na dañ taal faaw jël am faaw jël am incha allah donc euh, aussi Euh, ce qui un peu mooy bind. wala les dires de de de Aminata parce que à vrai dafa centré yëf yi ci jëmmam. Mhm. daf ne yow mag le président Sall mi ma xañ sama poste à l'Assemblée yow président Macky Sall mi ma xañ sama ay parrainage ça veut dire moom jëmmam Mm-hmm. moo ko intéressé mais nekkul le processus en général comment ça s'est passé mm-hmm. wala ce Sénégal subit en général bien que daal dinay noté mbirum détenu politique yi ci ci ci postam bi mais comme vous venez de le dire doyen ñoom ñëpp seen ay intérêt personnel kese kese tay ji on peut dire que moo naa moo leen animé aussi Bassirou Diomaye Faye ñu dem ci beneen point boobu on peut dire que c'est la première fois euh, dans l'histoire politique du Sénégal ñu am Euh, candidat qui est en prison comment ça doit se passer jamono ji dañ ko war a libérer mu defi campagne parce qu'on sait que war na am benn temps d'antenne à la RTS. am nga présidentielle 2024 bi c'est ce que j'appelle la présidentielle des inédits. Mm. dafa bëri ay inédits. lu fi xewul un conseil nation un conseil constitutionnel brocarde tout chaque fois ñu dal ci kawam. Mm-hmm. le nombre de candidats. 93 dossiers, on a retenu 20. Bah, oui. Ensuite, un des candidats et en prison. Uh -huh. Donc ça, ça c'est un conglomérat d'inédit. Mm. léegi nag ci biir loolu gis nañ ne jomay est candidat. Uh il le doit à ce que j'appelle l'intelligence politique de Ousmane Sonko. c'est un génie politique en réalité. parce que li mu def nii. ku am génie rek moo koy def. et am générosité aussi. parce que mbir mi boo leen àndee bokk mbir un projet du yow yaa ko war a mën a porter. am na ñeneen waaw am na ñeneen ñu ko mën a porter. léegi ci biir loolu nag bi nit ñi di wax moom xamoon na ne ñàkk bokk la gën a jege. ko bokk. ñu ñi yëpp aussi loolu lañ di wax certainement il ne fera pas partie du jeu électoral léegi nag mu trouver des solution de rechange ci la acté la candidature de Diomaye acté la candidature de Cheikh Tidiane Dièye acté la candidature de Habib Sy léegi nag question bi mooy mhm. est-ce que ñoom dañuy mutualiser seeni force ñoom ñett au wala ñoom ñaar dañu mutualiser seen force au profit de Diomaye pour gën a dëgëral pôle bi est-ce que ñoom dañuy def des candidatures séparées. Mhm. donc foofu lañ toll. léegi nag c'est un choix qui incombera à Ousmane Sonko comme que je suis l'initiateur ak à ses à ses ñu xool quelle la formule idéale pour ñu dem à l'assaut du pouvoir léegi le fait que Diomaye soit en prison. Mhm. pour l'équité. parce que code électoral dafa leer dafa ne tous les candidats doivent avoir les mêmes chances. Mhm. pour l'équité Diomaye dañ ko war a mhm. pour l'équité pour mu am les mêmes chances pour mu mën a dem en campagne électorale. Mhm. certainement ces avocats sont en train de mûrir un projet de liberté de demande de liberté provisoire parce que du ñu ay dof mhm. c'est des gens qui ont qui sont sur un grand de grandes procédures mhm. que que ce soit Maître Ciré Clédor que ce soit Cheikh Oureysid Ba Bamba Cissé kii mhm. nu mu tuddati Ciré Bathily donc c'est des gens très aguerris dans le domaine du droit certainement ils vont exploiter cela ou bien essayer d'exploiter cela léegi nag la question mooy quelle sera la réaction du pouvoir wala de la justice te tàmmal nañu dans ce dans Sénégal de deux mille vingt ba deux mille vingt quatre. Mm. décision de justice yi wala justice bi. Mm-hmm. day chercher toujours dans beaucoup de cas à faire plaisir au prince. Mm-hmm. est-ce que ça sera le cas. Mm-hmm. léegi en tout cas on est en train de voir mais ce qui est pour l'équité ak pour la démocratie Diomaye dafa war a am liberté provisoire dem. doo dem campagne yi jéem a wuti ay nitam comme on l'a fait au Niger mm. avec boise Bouzy Bouzy xawma langa du Niger euh, euh, euh, tey jii histoire histoire li wax nga ko léegi wax nga tudd nga fi Habib Sy Cheikh Tidiane Dièye et autres débat boobu judd na comme quoi ñoom dañu war a surseoir seen candidature dem rejoindre bu Bassirou Diomaye fay mais stratégiquement bu ñu xoolee ni état di doxalee ak Ousmane Sonko boobu ba tey doo bokk est-ce que ce serait pas un peu suicidaire ñooñu. bàyyi seen candidature est-ce que même bu fekkente ni parce qu'on sait que da nga ne bu dee loi la topp Diomaye dañ ko war a libérer bu fekkee libérer wuñ ko ñooñu nekk euh, sur le terrain ils peuvent battre campagne pour Diomaye en quelque sorte parce que saa suñu waxee danañ ne état de droit doxaluñ ko yoon doxaluñ ko c'est un candidat qui est en prison en quelque sorte stratégiquement loolu aussi est-ce que pas un peu bien euh, lenn moo may jaaxal foofu rek des forces hmm. peut bénéficier de l'aura national et international de Ousmane Sonko. Mmh. Il peut aussi bénéficier d'un capital de sympathie de l'ex-Pastef, des militants de l'ex-Pastef. mais boo leen nee boo leen tasee force yi fi mu toll nii da ngeen di fragiliser seen bopp. mais man li ma jàppoon mooy bu ñu mënoon fexe ba Habib si ak kii ñëw région rejoindre Diomaye ñuy parler au nom du donc ça ça serait plus profitable pour man. Hmm. donc soi parce que en réalité xam nga pour être un leader war nga nekk président war nga am la légitimité populaire. Hmm. te quoi si on dit la vérité Cheikh Tidiane n'a aucune légitimité populaire. Hmm. de même que Habib Sy Habib Sy il appartient à la vieille garde donc yooyu ñëpp donc bu ñu dajalee seen force ba mutualiser ko def des pôles fort man moo ma gënal que. pour te disperser force bi les gens ne vont te mais hmm. si on ne libère pas aussi mu nekk en prison ñële aussi bàyyi seen candidature alors que mënoon nañ baax mais candidature bu Diomaye bi day exister ba ko pour Diomaye campagne médiatiquement ah. foofu laay ah, mais xam nga ñoom bu ñuy wax rek dañuy wax Diomaye ainsi de suite wax kii ainsi de suite même pourquoi pas Cheikh ngi Gueye ne soit pas le directeur de campagne de Diomaye donc tout ça en tout cas man noonu la léegi nag ñoom en eux Ousmane Sonko et, et ses collaborateurs de mm-hmm. trouver la panacée intelligente mm-hmm. pour venir à bout parce que c'est un moment important de l'histoire de notre pays à ne pas ah te je crois que ñoom xam nañ ko parce que il y a des milliers de Sénégalais qui portent leur espoir mm -hmm. sur Ousmane Sonko mm-hmm. donc suñu gisul Ousmane Sonko jausi Ousmane Sonko je peux le dire donc da leen di arranger waaw te ñoom parce que il croit à ce projet te yaakaar nañ ne bés bu ñëwee seen i bànne seen i naqar yu bëri dina deñ ça pas dire qu'il va transformer le Sénégal en paradis non, non. personne ne peut le faire mais ñoom ñëpp di wax ni mais nit ñi am nañu yaakaar ne il va changer beaucoup de choses et fondamentalement le visage du Sénégal. et et le et le le le mal vivre des góorgóorlu quoi. Mm-hmm. des góorgóorlu mais suñu jamono. rétablir état de rétablir état de droit joxaat ak ak yelleefu sénégalais yi nga xamante ne boobaak léegi ñu ngi leen di toroxal yi ngàcc seen deret alors euh, euh, nga wax rek xëy na ci conseil constitutionnel bi nga xamante ni retenir na vingt candidats ñuy wax que ay quinze lañ daan am mais mm. euh, cette fois-ci on a vingt candidats. candidat dina am loo xamante ne ñu ko euh, jël ci suñu gafaga déjà ci wàllum koppar et autres mm, mm. est-ce que vous pensez que loolu respiration démocratique la wala laisser aller moo ñu fii ak la candidature de Karim je pense que waxoon nga ko fii la dernière fois mm. question de binationalité bi entre autres laataa waxtu wi di ñu xoj nga tënk ko rek waaw léegi xam nga la démocratie aussi elle un coût dafa am njëkk te boo opté pour démocratie on ne peut pas empêcher quelqu'un qui a des intentions de diriger ce pays nga ne ko doo ko def mm-hmm. mais léegi y un contre-coup mooy lan la ñu indil vingt candidats on avait cinq candidats en deux mille dix neuf ça nous quinze milliards mmh. mais vingt tu multiplies par quatre mm. <laughs> certainement ça va te au minimum cinquante milliards bu la mot donc dina simple ça veut dire que son beneen mbir mi aussi mooy l'électeur vingt candidats les choisir ce sera extrêmement difficile et puis par rapport au temps mmh. certainement eh, bureau de vote yi ils vont clôturer à vingt heures ah léegi nag certainement face à cette situation le conséquence constitutionnel va trouver une, un mhm. comme il l'a fait en deux mille 2019, permettre au minimum au cinq cinq cinq cinq bulletins. Mhm. Mais les l'OLIEP, je ne sais pas pourquoi le pouvoir balégui mhm. refuse ça. Un bulletin unique, devant le ben qui, devant 20 tours, ku est crochet. soxna si loolu lu gën a yomb. mais est-ce que dina arranger Amadou Ba parce que même au sein de Benno am na ñu ko xàmmeewul bu ñu defee loolu est-ce <laughs> am na maire bu jóg ah, ah, Amadou Amadou Ba nag. soo demee ne <laughs> combat. combat. mooy lan saf candidat. saf saf candidat waaw ba <laughs> ko amul candidat aussi. da nga koy saf ba léegi safagul ko combat boobu il faut mu régler ko d' abord. non loolu la xam nga mais dafa mel ni. dafa mel ni boo xoolee affaire yi dafa mel ni. ma Macky Sall mooy mooy candidat bi. ba léegi on ne sent pas Ba dans sa dans dans son dans ses de candidat. Mhm. moo tax ma léegi ba léegi combat bi saf candidat bi daal. mu candidat candidat lu sax tuuti. Hmm? waxtu wi xoj nañu Aïcha mi ngi ñuy def signa euh, Bougane Gueye Dany il m'avait dit la dernière fois que doomam dañu romb permanence su euh, APR mu ne ko mais papa pourquoi photo Macky Sall moo fi nekk au de Amadou Ba mhm. vu que c'est lui le candidat xale bu ndaw moo ko posé question mais une question pertinente boo xamante ni mhm. mën na ci def taxaw seetlu te day mhm. résumé li doyen di wax mu xaw a candidat candidat dul sax au moins comédiens yi mën a euh, toppandoo baatam imité en tout cas dina jaajëfal <laughs> <laughs> doyen merci. nous donne rendez-vous mercredi prochain incha allah jaajëfal yow tamit euh, Salma <laughs> foo jaar ñamba si sa touche personnelle elle est terrible Salma mais je l'adore euh, euh, jaajëfal yow tamit Xooxaan. merci Aïcha allez di la jox dig daje dama incha allah ci beneen invité ak ci jaajëfal toute la team du jour bu ñu doon accompagné depuis 6h30 ñu woon ak yéen ci réveil matinal bi tey moom damay wax lu tuuti rek. daal